Assalamualaikum, assalamualaikum. Euh, gay, yi ngi di bëggee di leen jox sen wàccuwaay way xamna ni yeen nga ci jàmm euh, man xëri ma nga ci jamm gay yi euh, di bu baax baax di leen jox seen way ah tem ngeen laaj ko nag da tilim ndax benn dara wax deug yalla matin midi soir <laughs> amul relève amul dara parfois day laaj ñu dugal ko ci ndox. am nañ def ak moom ndax wax deug yalla lancer na commande bi gay yi len dara leen daraa ji bu ngeen ko amé dimbal len ma ci ngir yalla wurna ko fune ah bari ki maa ngi gis benn euh, élément ci ñi commentaire nee na ma xëri sa dara ji Guinéen moom la ñuy yóbbu ci Coupe d'Afrique bi <laughs> <laughs> te nga bàyyi waa Tiken Jafakula yi te nga bàyyi Guinéen yi <laughs> kon gars yi euh, bu ko defee tey dama bëgg juste suñu ñëw ci benn euh, débat bu ndaw waxtaan comme ni ñu ko daan defee gars yi di leen wax ngeen continuer di like vidéo yi abonné aimé partagé gars yi leen jaajafal bu baax a baax a baax man naa kànja mën naa maafe euh, bu ngeen gisee fan yi may doxee nii c'est parce que am réew nag day toll foo xamante ne dañ koy waxtaanee benn beneen bi ci topp mooy dëgg la je suis un mais parfois dañuy waxtaan xëy na ku ci li la neex ci biir vidéo yi ñii comédie bi moo leen neex ñi may def drame di waxtaan ak ñoom moo leen neex bref gars yi kon tey dama bëgg a ñëw ci euh, euh, les candidats ñi nga xamante ni ñooy candidats ñi nga xamante ni ñoo admis maanaam ñu sélectionné leen pour ñu mën a euh, dem élection léegi gars yi ginnaaw bi ñu saytoo parrainage ba pare ginnaaw bi ñu saytoo parrainage ba pare ñun sunu candidat Euh, benn bi jàll na benn bi moo des waaye li ma leen di wax rek dama gaay maanaam layam layami rakam rakkami gaay yi yàgg yàgg dañuy naane fond de palais sénégalais yi focus leen focus leen focus leen parce que nag li ñu nekk li ñu nekk ni ni ni nii droit la loi la yoon la doomu aadama bu nekk nit mën taxaw ci àdduna ñëpp dañuy ànd ak man loolu mënul nekk ñii dañuy ànd ak yow ñee duñu ànd ak yow bu ñu demee ca jongante ba cëppaandaw ga nag képp ku yàlla def ni yaay gañe yaay gañe kon gaay yi di leen wax ngeen focus fi may ñëwee nag mooy dernière étape ñii ñi ngi ni le 20 la euh, yaakaar naa le 20 la mooy euh, euh, dernière vérification yi nga xamante ni mooy daj dëpp gi foofu la ñuy saytoo nag carrément maanaam maanaam foofu la foofu mooy terminus bi daal mooy daj dëpp gi ngir yàlla ngir yàlla bu fi kenn génn naan ni Bassirou Diomaye fay tëgalee la mënta doon candidat <laughs> parce que xam naa leen <laughs> Bassirou Diomaye Faye <laughs> tëb na miir comme ni ma koy waxee jàll na kenn mënu ci dara ah des na les dernières vérifications daj dëpp gi maanaam le 20 la ñu wax lañ koy saytu xool ñi nga xamante ni ñooy dem définitif ak ñi nga xamante ni duñ dem te leer na leen ni yéen foo jaar gars yi saytuwaat waat ay nit moom comme sélection dina amaat saytu dina amaat moom ah, ah foo jaar ñu am ñu ñu génne mënoo ci dara <laughs> kon ren mën naa ne ñoom li ñu bëgg ñoom seen biir ñoom mooy maanaam ñoom kese képp dong maanaam bu fekkee génn nañ Bassirou Diomaye fay rek daanaka daanaka daanaka ñoom seen bopp rek ñooy dem élection ñoom seen biir. kon gars yi focusons nu li ma leen di wax chaque jour focusons nu Bassirou Diomaye fay day dem day bokk ci waa jairan ak waa baati man gars yi gars yi li may ñaan ñi nga xam ne ñooy saytu parrainage yi bu fekkee ne génn naan ñu Bassirou Faye togolee la bu fekkee ne génn naan Bassirou Diomaye Faye malien la bu fekkee ne génn naan ñu Bassirou Diomaye fay lii la manqué wala lii la manqué parce que nag man li ma man li ma sonal man li ma sonal te soof ma mooy lii lii affaire parrainage yii lii amu woon ay affaire de parrainage ay affaire de set non non non non Sénégal du réew quoi Sénégal du réew quoi tuur nañ ñu lëndam ba woote fi ay lois yoo xamante ne ñun ñëpp xamuñu woon ni lois yooyu après lii lay jur. moo tax yoon dafa sew yoon dafa sew moo tax këttu ni jonn ngeen dem assemblée nationale voté yéen a ngi lor askan wi. lu ni salaamaaleykum maaleykum salaam yi ni dañ koy voté ji assemblée nationale di modifier ay loi xoolal jamono yële ci ginnaaw liñ fi soppi ci liñ fi soppee assemblée nationale ñoom ñi ngi doon wàcc lii. di soppi rek bis bu ne soppi bis bu ne soppi ñoom lii lañ doon wàcc te sénégalais yu bari xëy na experts yu bari xam nañ ko euh, xëy na xamuñu ko mais la majeure partie ñu yëngu ci politique xaaj bi xamoon nañ nu mu demee mais ñu ci bari seen bëgg-bëgg lañ doon doxee ba maanaam Sénégal benn révolutionnaire la am benn révolutionnaire la am muy Seydina Ousmane Sonko on se dit la vérité Sénégal benn révolutionnaire la am. ay xalifa Sall ak Karim Wade ñoom ñépp loolu da leen a woon ndax lan borom naa bokk rek moom nu mu bokkee baax na te ndaare lay jël naa bokk rek ah maam kay <laughs> naa bokk rek Khalifa Sall hmm? yii xoolal lii moo ñu yóbbee ci ay ay affaires yi nii ay saytu ay parrainage ak fu nañu dugg fa ak nangam sangam compliqué affaire yi kon juste gars yi di leen wax euh, Bassirou Diomaye Faye dafa war a dem Ousmane Sonko ci boppam dafa war a bokk. Ousmane Sonko ci bopam dafa wara bok parce que liñu fi tek lepp borom xam-xami experts yu mak yépp Usman liñu fi tek mënta Ousmane Sonko don candidat kon Ousmane Sonko bu donul candidat lima yena ma gëna xam jaay doole la jaay doole la mo fi am jaay doole la mais nak dañoo fàttalikuwul démb après dina ñew ci loolu parce que Bassirou Diomaye Faye euh amna ci ño xamni Euh, bu bu buñ sañoon du dem mais nag li leen jaaxal mooy kele bi kele bi lëfa nga ca kele bi dafa doon kele boo xam ni kele bi ab patriote la kele bi daa lànk bañ lànk kele bi daa lànk ñun suñ kele daa bañ daa bañ quoi daa bañ nee na man dinaa jël rek waaye kenn du ma dindi kenn du dugal nee na moom nee na moom benn yoon lay jël daal kele bi lool la ma yóbbante pour ma waxaale leen ko nee na moom benn yoon lay encaissé nee bu jëlee benn yoon dara dootul dugg dara dootul génn loolu jaaxal na sénégalais yu bari maanaam cele bi damay bàyyi tunkura mu ñëw ci ngeen déglu après mu ñëwaat ci tuuti rek indi ci ay leeral ci kele boobu noonu. gars yi dañu bëggoon toje léegi ba ñu ubbee kele bi kele bi na wajax ubbeeku léegi kele bi na leen nombre de parrain bii laa am léegi ñu dem ci kele bi ba nga sàcc parrain yi parrain yi bañ buñ ko génnee kele bi delloo siwaat ko ne ko duma dem. léegi bi ñu jaaxle ba jaaxle ba jaaxle ñu ne voilà léegi dañu jël affaire bi sambaxloo léegi ñu dem jëli bagage <laughs> ngeen gars yi Tunkara indi woon na ci ay leeral euh, sunu nijaay jooju nga xam ne wax dëgg yàlla bi combat bi tàmbalee ba léegi mi ngi ci lu ne mi ngi koy dégg euh, vraiment euh, rafet na parce que lii mooy Sénégal kele bi gars yi kele la kele bi kele la loolu dama koy côté parce que am na ci loo xamante ne li gars yi naan secret d'état loolu loolu secret la quoi waaw kele bi kele la kon benn instant dañuy tëb loolu aju loolu quoi waaw bref kele bi kele la foofu laa mën a yem léegi gars yi euh, juste gars yi ñu focus ma xamal leen ni fay dafa war dem bu fi kenn génn naan ñu Bassirou fay man malien la wala togolais la wala guinéen la bu fi kenn génn naan ñu Bassirou lila fay lii la amul lii la manqué lee la manqué déedéet sénégalais la bépp dossier bu sénégalais war a yor bépp kayit bu doomu sénégalais war a yor euh, Bassirou Diomaye fay am na ko lépp loo xam ni waroon na ci parti bii di Pastef ak nu mën a demee rek gars yi ñu ngi ko doon def hmm? manqué wuñu dara comprendre ngeen donte que désourdur nañ parti bi ni parti bi ex la te xam na ni yoonu Bambey dong du yoon kon gars yi focus leen focus leen beneen bi ci topp mooy nag ah li may li may fi may eh, eh, insister ba parce que man damay liir commentaire man damay liir commentaire damay topp commentaire parce que si seeni xalaat. ci waktan, waxtaan man ci seeni xalaat la ëpp lu may sukkandiku di ci waxtaan ak yeen man damay top commentaire ku yaakaar ne xëri liirul say commentaire yaa ngi nax sa bopp man naa toog yéen ñi commentaire yépp may tudd seen tur benn par benn may tudd seen tur benn par benn waaw may tudd si par benn parce que damay damay toog di ko di ko di ko saytu bu baax a baax a baax di jàngat kàddu ji parce que maga ñu ngi seetaan euh, xale nga ñuy seetaan Euh, borom xam-xam mi ñuy seetaan kon yeen ñepp vraiment seeni cadeau ak seeni xalaat dañ koy soxla motax may bëgg ngeen commentaire ci vidéo yi bu baaxa baaxa baax di commentaire parce que dañ koy soxla pas question que ni dañu bëgg rek nit ñi di bind di commentaire Dedet. mais ñun seeni cadeau ak seeni xalaat dañ ko soxla pour gina mëna am pour pour secret xëri ma expliquer leen ko secret xëri yeen yeen may inspirer pour mu yomb waaw parfois nga gis ko xamante nan la non xëri fan lay inspirer wu yow yaa may jox inspiration mhm. yow yaa may jox inspiration moo tax may bëgg ngeen di commentaire bu baax a baax a baax di wax seen ay xalaat beneen bi ci topp mooy suñu frontières yi élection yaa ngi ñëw dañoo war a voté ji ngir yàlla suñu frontières yi ngeen tëjal ñu ko surtout bu Mauritanie <laughs> surtout frontière Mauritanie jàppale leen ñu ngir yàlla ngeen tëjal ñu ko parce que bëgguñu benn étranger ñëw fi parce que Sénégal gars yi <laughs> dañuy naan maanaam dafa mel ni béy amul borom comme amul kubéer rek comme mayga rek <laughs> ndax euh, maanaam fi may waxee daal mooy sunu frontière nañ ñu ko tëjal daal parce que nag ma attan nañoo bàyyi ba élection yi ni salaamaaleykum jabi camion <laughs> ay camion yi naar indi ñu di ko <laughs> lépp mën naa ne kon yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk suñu frontières yi donte que du ma ab commandant duma ma ab commissaire euh, man te joxe ordu bokkuma ca waaye ngir yàlla rek dañuy ñaan rek. waaw dañuy ñaan ngeen tëjal suñuy frontière maanaam rido mayga bi <laughs> nañ ci takk ay kii daal maanaam bu bu bu ñu def ko ñëw rek firi jàll <laughs> parce que élection lañ jëm parce que gars yi bari loolu commentaire la boo xamante ni dama koy jàllale waale euh, dafa am benn waaju commentaire euh, fan yee ci ginnaaw ni xëri insister ci Euh, frontière yi nañ ñu ko tëjal parce que nag attan nañoo bàyyi ba comme kenn bëggu leen xam na ni moom bu bëggee dégg-dëgg réew mi mënuñu fi am dara dara lañ fi mënta am dañuy bàyyi ba élection yi ñëw ñu yabi seen i camion ñëw <laughs> comme campagne fan ya ci ginnaaw euh, bi ñuy def ay tour ak yooyu gis nañ fa ay nit ñoo xamante ne ñun xam nañ ni doon ay sénégalais parce que sénégalais neex xam ñu suñu wolof ak ñuulaayam dama sénégalais ak ñu gis fa ay nit ñoo xamante ne xaw man xaw ma ay portugais la xaw ma ay libyen lañ xaw ma ay naxar lañ <laughs> ñoo doon gunge sunu bàyyi ci kenn jaafakuli fan yee ci ginnaaw bi muy def tournée <laughs> kon benn instant gars yi loolu jar nañu ci bàyyi xel baax a baax sunu frontières yi bu ngeen ñu ci mënee dimbali ngeen dimbali ñu ci tëjal ñu suñuy frontière parce que nag wax dëgg yàlla buntu kër day am caabi na ngeen def ak coono am ngeen jàmm mbaa kenn yabu leen bu ko defee gars yi sans plus tarder damay dem euh, vaar nuyu ji bàyyi Aly Sène ndax wax dëgg yàlla moom ba muy sàkku réew mi maanaam euh, ba wote pour askan wi jàppale ko euh, dafa am fu mu taxawe woon di bañ injustice di bañ ku koy xañ ak ak ay yelleefam te tey foofu la tollok ñun kon gars yi dama leen di bàyyi ngeen seetaan vidéo bi euh, après ma ñëwaat mooy loolu. nous avons choisi la voie des urnes mais il faut bien que ceux qui sont en face qu'ils comprennent que nous nous pouvons et nous avons les moyens politiques d'imposer notre victoire. Il faut que tous ces petits apprentis sorciers, agnablés du palais, arrêtent. Arrêtent de provoquer le peuple sénégalais. Il faut qu'ils comprennent que nous avons les moyens de faire descendre plus de 100 000 personnes, plus de 200 000 personnes, conquérir le palais de la République. Mais notre choix est un choix de démocratie. Nous voulons construire le pays, nous ne voulons pas le détruire. Mais nous ferons face contre toute tentative de bloquer la volonté populaire le 25, 25 mars. Je n'accepterai pas, en tant que candidat du peuple, choisi par le peuple, que quelque section que ce soit veuille utiliser la supercherie. <laughs> yallah non gars yi gis de non Sénégal Sénégal na gars Sénégal man jaaxal na ma man Sénégal daf ma jaaxal. Euh, parfois da nga naan réew mi est-ce que est-ce parce que ku ci nekk booy falu 2012 2012 2012 ah lan moo fi xew tey lu fi xewul woon 2012 ci ay manifestations ah grève ah xeex àq ak yelleef dara beesu fi dara beesu fi dara beesu fi. Baye Allé dàqoon a jooy ñaxtu moo dàqoon na woote moom moom fii la dem ba ci sëñ bi ne <laughs> naan ko euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar wuy ma waxal waxal waxal Ablaye Wade bu ma tëj parce que damaa ragal kaso <laughs> kon nga xam ne gis nga Sénégal moo tax bu gaa daan xaw ma Joy ni mo ki parfois nga gis ku nan am na xamanteni ni fi lañ tok di ngand ngand lo biñ leen ci kaso don Joy. doon ah say <laughs> an wax rek la fi nek wuyuma ma am ko fi daw ba ci señ bi de nan ko waxal ablay wad bu ma tej parce que man hmm kaso euh, ta bu ngeen gisee parfois nit duggu kasso ndaysan day tok ba ci yag yaramam daw mu joy du question que ni kaso bi mu nek lay joy dedet dedet yow nit ki di ko tooñ sax tooñ nit am na ci ay doomi aadama yoo xamante ni gis nga boo leen defee lu leen metti buñ jàkkaarloo yow di wax sax dañuy jooy parce que nit ki am na boo leen tooñee seen xol bu feesee buñ jàkkaarloo yow di wax dañuy jooy te am na ñu nekk kaso di jooy loolu waxi dof la waxi dof la parce que kaso moom boo bëggee dégg-dëgg. Euh, amul doomu aadama buy noyyee fii ci réew mi ku mu jomb dañuy ñaan yàlla mu musal ñu ca waaye nag man buñ may tëj buñ ma tëj ci sàcc buñ ma tëj ci fen buñ ma tëj ci euh, def naka su dul noonu man buñ may tëj nan ma tëj ci maanaam dëgg ak euh, bëgg sama askan bëgg sama réew ak di xeex lu luñ ko tëjee démocratie lay la àq ak yelleef lay lay xeex ñu tëj ko saa loolu victoire weesuwu ko moo tax barki démb gis ngeen nee na Ousmane Sonko euh, moo jël huitième ci ñi nga xamante ni Euh, ñooy ñooy xeex ak ak yelleef ak démocratie ci Afrique xawma monde bi lañ wax des naa ci am lu ma leer mais nañu Ousmane sonk moom lañ placé en huitième place ci ñaata doomi adama ñaata junniy doomi adama Ousmane sonk moo jël huitième hmm, saa waaye loolu loolu loolu victoire la de bàyyi loolu loolu day caaxaan de loolu doy caaxaan de nañ ci bàyyi xel bu baax Ousmane Sonko sawaay beneen Ousmane Sonko beneen doomu aadama la mi ngi ci high level mu ngi ci beneen mu ngi ci beneen waaw Ousmane Sonko sa waay ñàkk xam li muy waral moo bari ñàkk xam li muy waral moo bari kon gars yi dama leen bàyyi di leen jox dig daje incha allah euh, ba beneen leen wax ngeen abonné aimé partagé jàppale seen xarit seen doomu day xëri pro. parce que instant bi foog ñu waxtane rew mi waxtaane échangeante parce que tamit dañuy bëgg mag ñu diñu sétane xalé yi diñu sétane mom jeunesse bi mom dañoo bëgg comédie mom dañoo bëgg comédie mais baxna téwul je suis comédie bi lañuy def man je suis naturel man saa man mënuma sérieux man xamna lool man mënuma sérieux même dama koy jëm mais ça sera difficile à faire man sama côté kon ñi xaar comédie ci xëri comédie ba tay day layam layam di tarax laxee ka rakkam rakkam yi mën naa man na ma mën naa kànja man naa maafe ba élection yi jàllee ngeen xam ne lépp dëgg la eh mën a xëri ah sa waay yéen nag wuy ma abonné aimé partagé lakkum parti kum wala ya parti layam layame talax-laxi rakkam-rakkami naa ni fonde pale ndeem mën naa ne waaw sans dépend nag ci ñun sans dépend ci ñun bu ñu neexee dañuy naa fonde de voilà